xanaa am euh, mbégte lool ñëw euh, tey euh, teewal si fii mairie de Dakar te di sant yàlla parce que tey mairie de Dakar am nañ tey opportunité mën a tey dalal ay gan dans le cadre de ce forum wante ñun waa mairie de lu ñuy gën a rafetlu mooy opportunité bu ñu am pour mën a gën a sargal doomu aadama mën a fësal doomu aadama mën a yëkkati doomu aadama moo xam jigéen moo xam ndaw euh, nu ko waxee tubaab yi mooy indiwaat l'humain au cœur de nos priorités et de nos urgences et de nos politiques donc euh, économie sociale et solidaire su ma kay dégg nee naa nit ñi moom ñun dañ ci juddu parce que suñ ko doon euh, faramfàccee ci gàttal mooy man mën naa ñëw dugg ci benn boutique ñoo jënd si benn bouteille Fanta dama nar a joxe benn bouteille bu vide pour am benn bouteille bu bees loolu yëpp ci xeetu économie sociale et solidaire la. wala su ma mbokk di Malick jóop di directeur général ASEPEX yor benn bayaalam ma yor suma bos man ma yor fa ay ginaar moom muy béy ay tomates ak ay salade ñuy ko loolu mooy économie sociale et solidaire suñ ko mënee faram-fàccee euh, mën nañ ko faram noonu wante daal am mbegte lool mën a ànd liggéey ak gouvernement du Sénégal ànd ak suñu jigéen bu baax ji jigéen bu mën góor di madame le ministre Zahra Iyane Thiam Euh, pour que Sénégal mën a am ndam parce que bii mooy euh, première fois euh, bu ñuy organiser forum bu mel noonu fii ci continent africain donc moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ñaan yàlla suñu génnee ci forum bi ba dem ci luy di évaluation évaluation boobu mu doon ndam ci askanu Sénégal ak ndam ci Sénégal ñu ngi leen di gërëm di di sant